mbokk yi dal leen ak jàmm ci bët set point com tey di talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ba léegi njaw ma ngay des xabin ci mbiru jaari saw laaj bu samp jaari saw ana nga bërëb buñ ko localiser kenn indiw si faram fàcce mu nekkoon meilleur élève di Sénégal ci atum 2018 2019 mu ngi ci jàmm le quotidien di ñu xibaar jaari saw dafa dem ci coobareem laas feelu ko ci mbiru jaari saw enquête def gëstu boo moyul jaari saw dafa craqué mu dollu si ni papa mi génn àdduna am na jeexintal ci moom ak not yuy wàcc mbir mi ni disparition volontaire la dafa dem ci coobareem Marème Faye Sall njiital fondation servir le Sénégal ci télévision nationale yëkkati ay kàddoom di xam na ni juróom-ñetti at waxul ndax bëggul gêner président ndax moom lañu ñu fa fal moo tax mu nopp mu dool si ni saa su ne bu soxlaa ndimbal njiital réew mi moom kay taxaw bu ñu sukkandikoo ci quotidien ba ñu laajee ndax dafa am problème xel ay ree sax dakaa jàpp muy ni si ay leeral lu wokk dërëm wokk woo ndax ci nit ñi la déggee dafa feebar soleil nekkal nañu moytu yenn nit ñi vox pop di xamal dañoo waxoon dama am feebar xel ba rawale ma ngir faj ma Marème Faye Sall première dame jàpp na ni moo ngi fashion amul compte Facebook amul Twitter Thiès Dakar ñoo ngi ci lëndëm ndax couvre-feu bi yokk nañu ko ci juróom-ñetti fan vox pop gis ni jeexul couvre-feu bi ak état d'urgence bi nguur gi xamatul délai moo tax mu bàyyi ko ak gouverneur yi quotidien moom di wax ne Antoine Félix Diome prolongé na couvre-feu bi ba noppi publier arrêté bi laas di ñu xamal président Macky Sall delloo na moo ngi nii source a di ñu ko nettali ci ay bés képp juróom-ñeent fukki doomu aadama la ñu testé ñu positif téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ya dañoo amee cas communautaire mooy ñi amee jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll journal bi bind ni fukki doomu aadama ak ñaar ñàkk nañu seen bakkan ci wàllu communautaire lépp ñu ngi ko recensé ca commune bu Daara ci diggante mercredi jàpp vendredi bii ñu génn Walf Quotidien def bilan ci couvre-feu bi juróom-ñetti fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan ci covid bi ñu wàññu ko ci fukki fan ak ñaar ndaxte réewum Sénégal dina jot dose vaccin yi ci weeru mars bi ñu dëgmal ci atum 2021 bii di laas xelam dalul ci jàngoro jii di coronavirus fukki doomu aadama ak benn ñoo faatu ci benn fan wopp gi mu ngi def ay ravage ci réew mi keneen ko def ay ravage te Kolda te yoon teg na ko loxo muy Daouda Ba alias Baba Malabe Mbàkke Ruuxu de Saare Ngañ muy faux prophète ak complice it yóbbu nañ leen prison libération di ñu wax li ñu leen di toppee muy séquestration association de de mineurs ak pédophilie xibaar bu mujj bi information judiciaire rapport bu tukkee ci gynécologique bi di dëggal ni faux prophète bi am na rapport sexuel ak mineur bu am ci fukki at ak ñeent moo tax ñu defeere ko niki tey njiital horizon sans frontière ñu defeere ko ca parquet ba moo tax mu bénéficier wu retour de parquet loolu la ñu mën a jàngee ci soleil national Boubacar Seye ñu ngi koy toppee diffamation muy sos yàpp interview Boubacar Seye dafa xam ne ni milliards la union européenne jox Sénégal ngir xeex immigration clandestine tukki bu jaarul yoon nguur gi daf ko jëfandikoo division des muy dig teg nañu loxo xaalis bu takku 2 milliards buñ ko xaymaa suñu xaalis 1,3 la ci coupure ak 50 euros ñu ngi ko tegee loxo vendredi bii ñu génn ca Mamel ca cité Makiou Faye présumé cerveau bi nag ivoirien la ak ay sénégalais mauritanien la ñu observateur di ñu xibaar ñu def li ni mel defare nañu leen ca parquet ba waa dik ca bërëb ba nag fekk nañu fa ay machine ay décompte faux billets accessoires rouleau élastique grand latex ay coton ciseaux malfaiteurs la ñu démantelé lu toll ci dix mille personnes ñu teg leen loxo ci atum ci document bi ba tey personnes mi ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar benn Sinois Mohamed Fall alliance dix mille teg loxo présenté wu ca procureur ba police bu Mbàkke fourrière lu toll ci trois mu ñetti téeméer ak juróomi oto immobilisé lu toll ci moto muy ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ak cent muy téeméer ak juróom ci njombe yu ñu def Mbàkke ñu xayma ko ci 15 millions bu ñu sukkandikoo ci Seneweb ba tey ca Bawol rawatina ca Touba accident bu métti ab oto moo mbëkk dawalkatu sareet ca quartier Sexaw ga bu ñu doyloo Seneweb chauffeur bi dafa daw ki def li ni mel ba léegi kenn tegu ko gët ba noppi kenn identifié ko ku loru ci mbir mi sax dafa mujjee ñàkk bakkanam ba ñu rawale ko ci hôpital Matlaboul Fawzayni Moustapha Diop moom sax denc nañ ko ci cimetière yu bàq ya scandale ca Dakar Nav Libération def ay révélation ci 24 appartement yu ñu luyee portugais yi société portugaise Linsav International 24 appartement ca centre ville libération di ñu xamal société bi weer bu ne dina fay lu toll si muy dikkee par appartement appartement bu ne am na ñetti néeg jàpp ñeenti néeg ci bërëb boobu sax njëgu location bi toll na ci par appartement ci fàttali Dakar Nav ak société portugaise Lisnav International dañoo signé contrat de concession ci ngiru 25 ans ci wàllu exploitation ak infrastructure réparation navale Macky contrat bi dafay lor réewum Sénégal xibaar ci wàllu people Tocqueville muy xam ne ni ci Dakar Buzz jafe woon na lool ci moom mu joué séquence bu mu war a tëddee muy actrice muy actrice ci tour de famille mu dalal équipe bu GFM ci interview dellu si waat ci enfant sam mu jaar ak naka la def ba intégré série background de BBC ak difficulté yi mu amoon ngir mën a joué rôle bi nga xam ni dafay tëdd ak producteur bi ak nu muy def ak étude bi ak way juróom comédienne bii di wuyoo si turu Ndeye Khady di bëri muy xam le ni ci diggante dund ak dee la nekk yàlla rek moo ko suturaal bu ñu doyloo ay kàddoom tukulóor génnee single bu yees taamu naa la ànd seek ajuza muy voix yu neex ñaari mélodie yu amul fenn muy sonorité afropop mannequin bii di Marie Louise Diaw doon feete anniversaire am photo yi mën ngeen ko gis ci leeral ca Mbàkka Aziz Ndiaye di ñaanal soxnaam bi génn àdduna at moo ngi nii ci ab émission ci atum 2015 Aziz Ndiaye dafa delloo njukkal soxnaam laata moo ñàkk bakkanam xibaar tàggat yaram délégation sénégalaise ñoo ngay gën di takku saw Sow ca Yaoundé Sita Sangaré di tagg candidature di président de la fédération de foot di xamle ni maître Augustin Senghor homme de valeur record di ñu xamal Chelsea ak Leicester ñu janoo ni ki tey Edouard Mendy ak ñoñoom ñu ngi ci danger Koto Boy cinq ans ginnaaw demi-finale coupe du monde directeur technique national di réccu ñàkk teewaay Sénégal ca CHAN ba mbokk yi jërë ngeen jëf